jëf xale yi xol sedd tina daal waaw góor yéen kontaan gis naa seen taxawaay dem leen bu leen ragal waaw góor yéen kontaan gi kërkëri liggéey di ko matal waaw góor yéen man bég naa nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal te gunge leen yaakaar naa

kerti kërti tek bagage yi ba lepp de ñu yeesal lal tapi jënd matelas jënd rideau takk kon loolu taw tawfeex la daal sante yalla la mbégte la contentement bu wér loolu contentement lay def si ñun rek bekk lay def si ñun waaw dañuy yokk tamit beneen kan puissance ndax li dafa neex bu mënul bopam dara nga dimbali ko te yalla rek tax te séntuwoo ci dara lool rek mbekk la contentement waaw loolu rek sante yalla la dal kontaan nañ ci liggéey bi trop. jaajëf Baye Babacar ginnaaw bi nga xamante ni tey ñëw ngeen fii ci néeg bi fekkoon fi ay bagages yoo xamante ni jàppoon nañ ne tey du doon liggéeyu benn fan wala ñaari fan ngeen jóg bàyyi seen te bàyyi seen liggéey bàyyi seen place yi ngeen ñëw di ko taxawul benn malade mental boo xamante ni mi ngi ci biiri kër yi way juróom waaye nag biir kër gi néegam bi nga xamante ni fi la dëkk mu fekk fi ay bagages yoo xamante ni daanaka mën nañu wax ni lépp mbalit lan ngeen sentir ba tax ngeen defaral ko ko mom te mu ci seen biir kër lan ngeen ci yëg bi ngeen ko défaralé ba pare. di rafetlu ni lii man bu ñëw ñëwee partenaire wuri ba ñoom ñoo fi njëkk ak Pathé mais man bu mu ñëw man dama ké sax bu mu ñëw wax dëgg yalla sama xol toy na quoi sama xol toy na trop. dimbali ko xamantene mënul bopam dara mu def dang ko ko ko defal gatcha nga la ma ànd taxaw mu ci kaw ci kanam ci lu baax li état japp ci. borom doole jàpp kenn jàpp ñun ñooy dajale suñu dërëm ak suñuy ñaar dërëm ah, taxaw ñu gudd fan ak wér lu ñu na gën a yàlla may leen yëfu bopp metti na nag trop li ngay gis nii lu muy bari bari ñun ñooy dem ak suñu moyen bopp état jàppaluñ kenn jàppaluñ kenn defaluñ dara di waral tey suñu teewaat fi nag mooy ñëw nañ fii bu benn du ñaar ñoo topp si malade mental bi nekk fii ndax dafa amoon tànk daal mais bu ñu musaan a ñëw ba fekk ko ci néegam mu tëdd ñun suñu ànd day tukki waaw ndax dañ naan néeg rek mais du néeg néeg quoi ndax gis ngeen dafay bagage ci biir lépp lépp lépp lépp ci bagage te kon benn lal boo xamante ni taga rek la am gis nga ko euh, idée bi nag bàyyi ko ci président bi di bàyyi baat ñaar xool néeg jamono rek noonu léegi ñu defar ko su la génn def social euh, social boobu kawe sax jaamu yàlla yi tamit participer si ndax am na ñi nga xamante ne ñi ngi fii ci dëkk bi wax ba dëgg yàlla ay borom xol rafet nañ ñu bëgg doomu adama lañu te ñi nga xam ne te ñi ngi defal yàlla si jaamam ñi dugal ci seen loxo tey nag ñu ñëwoon fi jaayante comme ni ko góor yàlla yi waxee rek bagage bëri woon na lool mais bagage génn suñ bakkantes moo ñu gën a lool génne lañ te nag saret bi dem na trois péage te am na lu fees ba léegi jamono bi nii gis na ko defal nañ ne ba mu set jënd nañ frigo jënd tapis jënd man laa indi ko teg waaw comme ni ko Baye Babacar Sall lañ koy waxee rek ñun ay jeunes la ñoo xamante ni ñun ñooy génne suñu propre moyen ngir dimbali néew doole yi rawatina malade mental abandonné yi ndax loolu lay concept association am tax ñu du état du nitu diine boo xamante ni ñu ngi ciy jàpp waaye ndem ñun ay ndaw lañ te dañoo opté pour jaamu yàlla moo waral képp kuy malade mental rek dañuy jël décision taxawu la mooy ci sa dundin ci sa nekkin ci sa dëkkuwaay te vraiment tey moom wax fa dëgg yàlla lii nii nii nii nii néeg bi ñu toog di wax nii suñu borom rocc woon suñu sant nañ sant nañ bu baax ndax li ñu defal góor gi mi ngi mel ni ñu lañ ko defal suñu bopp di jaaraamal képp ku nga xamante ni rek participé na si liggéey bii nii nii nii nga xam ne jaamu yàlla la ñu ngi lay ñaanal yàlla waaw li ñu ci def yàlla suñu borom fulandi ay yiiwi yi sotti ko ci dëkk bi mu doon sax li fi jëlee tawat bi di coronavirus ba ñëpp am ci jàmm nga xam ak saa yeeg comme ni ko sunu naataango yi waxee association taxawu taxawuñu wéradi di dem ci yi boppam rawatina membre yi nga xamante ni ñooy membre fixe ci association taxawu ñu wéradi jaayanteeg yàlla seen doole seen pas-pas première jour bi nga xamante ni jël nañ paa bi ci tali bi ñu gis ni fekk nañ ci moom weñ bu metti ñu buddi ko weñ boobu noonu ci tànk bi mu yàgg moom lool nekkoon lu metti ñu ñëw di ko defal euh, traitement à domicile di ñëw chaque trois jours di ko defal ay pansement ci góom bi pour mu wér ginnaaw bi ñu ko yóbboo hôpital bay suivre ay traitement ni mu waree waaye saa bu ñëwee ci kër gi rek gis ni néeg bi néeg bi doy na wax trop comme ni nga koy gisee noonu ci bagage lii ndax jekk na ci dund ni doomu aadama bi nga xamante ni suñu borom moo ko teg tawatu wéré di xel luy mbalit nañ ko ko sànni buñ feeraay nañ ko ko sànni ndax kooku noonu mën naa ànd ak wér li ci gën a metti mooy bi ñu duggee ci néegam gis nañ ni lal bi sax amul la paa bi ci tagaro kese lay tëdd ay mbokkam nag bañaluñ ko loolu waaye nag xëj na loxo jotul ginnaaw te di leen sant di leen gërëm ndax utal nañ ko néeg bu muy nekk te ñu ngi koy jox lekk di ko jox naan di ko taxawu taxawaay bi waaye mu doon lu rafet suñu digganteeg ñoom ñu teg këllug yàlla gi ni kan moo ñuy jàppale te yàlla tax ngir ñu defar néeg bi am jàmbaari Canada ji jàpp na ci te yàlla rek tax ak def te yàlla tax ak Los Angeles jàpp nañ ci te yàlla tax ak waa France jàpp nañ ci loolu noonu lépp su ngeen gisee mu am moy ka association am taxawu ñu wéré di jamono Covid 19 lañ nek ta kenn ku nek ci ñun ñi and ak suñu xel ñi ngi dawante dégg nañ ko sank rek ci benn koñ ño xamante dañ leena quarantaine am kenn ci ñom ku génn wa koñ bi jog di alu ta pourtant malade mental bi sax jour mu romb leen te musu ñoo alu pour ñu fajj ko musu ñoo alu pour ñu taxawu ko. loolu noonu yëpp nekk loo xamante ni association am taxawuñu wér def na ci liggéey bu am solo bi ñu ñëwee nag gis nga ko bagage yi presque fay nañ sareet lu tolloog 5000 francs pour mu génne bagage yi bari woon lool macha allah waaye sant nañ gërëm nañ